sini jaar-jaaral dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg abonné wu ci youtube bu ñambi tv bësal notification bi ñu tàmbal la foofu nga mën abonné wu ndax ngay am vidéo yi ñu dugal chaque jour salaamaaleykum wa rahmatullah eh, sang bu tedd bi ñu ngi ndokkeel ci yow di la bu baax di rafetlu kàddu yi am na solo enseignement bi am na solo te aw na yoon euh, di nuyu jëmm ju tedd ji à travers moom Seyna Aline di nuyu waa télé bi euh, Ndiamé TV ak mbooleem ñi koy suivre ndeysaan di rafetlu laaj boobu noonu dañuy wax ne euh, Cheikh Rafal moom géej la waa géej la goo xam ne nii ñun biir ñu ne xuus nga ci géej googu noonu. kon mboolem luñ la ci laaj rek tontu bi amee nga ko waaye mbaax ak yaatu rek moom moo la jàpp. day jëmm joo xam nag dafay wax ci moom dafay dafay dafay dafay neex lool day sedd waaw ndax dafay symbole tasawuf Cheikh Rafal dafay symbole tasawuf ndax moom bi mu ñëwee rek daf ko lépp jaami yàlla yi. dafa ne mboolem yonent bu fi jaaroon doon liggéeyal yàlla man Cheikh Rafal boot naa la sama ndëgg ginnaaw. bu buñ ko déggee nag duñu ne Cheikh Rafal dafa taxawoon yor yor yor mbootu comme ni ko soxna yi yoree di boot yonent yi waaye fan la joggi fan la toog ba ne yonent bu ñëw rek man Cheikh boot naa la nga liggéey ba sa liggéey mat ma dëju di garab di xaar keneen ñëw ngir ma boot ko loolu mooy feddali ne Cheikh Rafal mooy njombaxtalu maanaam tasawuf ndax ñooju ñoosu jaamu yàlla mooy laa ilaha illallah yàlla ba mu bindee nit ñoo maa xalaxtul jinna wala insi illaa li ya'buduni sàkku ma nit ak jinne lu dul ñu jaamuma la wax. objectif bind gi yàlla bind asamaan ak suuf yëpp ak li ci diggante bi yëpp jubluwaay mooy bind nit pour mu nguuru ci biir waaye jubluwaay bind nit mooy mu jaamu ko te jaamu yàlla sunu wasila bu tedd bi Cheikh Moussa Sène Ndiamé borom daaru dafa ne du du mbiru du yëngatuy jëmm du melokaanu biti mm-hmm. waaye mbiru xol la. Mm-hmm. ndax yàlla moo ne ci alxuraanul karim bu ëllëgee laajuma doom laajuma alal xol laay fay ginnaaw xol yëngatuwut ñamee ne xol yëngatuwut kon xol kon dafa am ci lu muy jaamu yàlla loolee xol di jaamoo yàlla loolu lañ tuddee tasawuf loolee la tijaan yi tuddee faydu loolee la chrétien yi tuddee xel mu sell mi maanaam diine yëpp kenn ku ci nekk bi nga ñëwee am na loo ko tuddee waaye sirru bi secret bi moom mooy maqaamam tasawuf tasawuf boobu noonu nag jëmm ji ko incarné méngoog moom ci zahir ak ci baatin mooy maam Cheikh Rafal moo tax bi mu ñëwee li dox diggante jaam ñi ak tasawuf boobu noonu mu puus ko xejji ko Cheikh Moussa Sène Ndiamé borom daal dafa ne julli woor natt asaka joxe muram koor aj màkka tabax jàkka tabax jumaa du jaamu yàlla. Mm-hmm. ñu ne ko luy jaamu yàlla mu ne mooy laa ilaha illallah ak leer gam àndal. Cheikh Rafal bi mu ñëwee waxu ko ci làmmiñam waaye daf koo dund. nit ñi tegoon def ko jaamu yàlla te du jaamu yàlla Cheikh Rafal rek am odaasu puus ko pour won jaam ñi mooy jaamu yàlla. lii jaamu yàlla nag moo tax moo tax lu nekk dinañ ko ko jëwee kër Serigne Touba daawut julli daawut woor daawut nangam daawut nangam waaye kenn ñemewut a wax ne Cheikh Rafal wanoon na ginnaaw baatub laa ilaha illallah mm-hmm. ndax laa ilaha illallah mooy jaamu yàlla moom Cheikh Rafal nag ci biir ak dundam ci biir ak dundam li tax mu mu mu mu mu ute. gaa yu bari ñëw nañu xool ma xam mu dis gan comme ni ko Serigne e waxoon mm-hmm. waaye Cheikh Rafal bi mu ñëwee dafa nangoo yanu loolu noonu. Mm-hmm. xolal Cheikhina Cheikh Moussa Seye Ndiamé borom daaru mi ñëw nga xam ne nee nañ moom mooy Baye Fall bu mag bi mhm. bi mu ñëwee dëj wooteem ci maqaama bi luñ luñ ko waxal mook njabootam mhm. ay yéeféer lañ bokkuñ ci lislaam ay lañ bokkuñ ci yoonu murit mhm. kon Cheikh Fall mel gim mel ni ku utek nitu diine yi mooy ànd gim ànd ak ñoom ndax sëñ Bamba da ko daa wax ne Cheikh Rafal mu ne ko Mbàkke mu ne ko bàyyil sa dof dof lu gi Cheikh ne ko Mbàkke mu ne ko Fall mu ne ko bàyyil sa nit nit lu dëgg kon dafa melni ni euh, courant bi plus bi ak moyen bi nga yor plus kese kese kese bëgg tal courant nga yor plus kese kese kese bëgg contact lampe mu tak du tak léegi nak jam bis am sañ-sañu taxaw ci moyen bobu non nga xamantene mo yor lepp koku moy Cheikh Rafal motax mané ma moy moom tasawuf mooy ñoosu tasawuf ñu ngi ndokkeel di bëggé di Cheikh bu baax baax luñ ci am luñ ci wara motal rek tey di ki yow dañ ko mën a mottali waaw xam nga jakkay tawhid mooy doomu aadama jàkkay tawhiidul ilaahiya mooy jàkk ji yàlla tabaxal boppam mooy doomu aadama wa anna masaajida llaahi falaa tad'uu ma'a llaahi ahadaa bi alxuraan wax bi ko yàlla di wax jëmmu doomu aadama moo taxoon muy wax ndax yàlla jëmmu doomu aadama la tabaxal boppam ba noppi dëkk ci biir jëmm ci gis nga jàkka ji nga xam ne ni dañ julli ay doomu aadama ñooy cotiser seen xaalis tabax ko ndoxu taw bii sax boo defu ndànk est-ce que ko kon jàkka la joo xam ne li ko tax a jóg mooy jaami yàlla yi ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon xam ne la organisation wu l'islam ci màkkatal mukarama dafa ñëw fukki at ak ñett mu woote lislaam dëj ko ci benn baat muy laa ilaha illallah dama cee mës a ak benn kilifa benn imam boo xam ne kilifa la ma ñu waxtaan ci ci lislaam ci ci lislaam ma ne ko lislaam mooy tawhid julli bokk ci woor bokk ci lislaam mooy tawhid kese te yonent yëpp moom lañ amee woon mu ne ma déedéet yonent yi amee woon nañ tawhid te tawhid moo doon lislaam waaye dafa manqué woon ma ne ko ndax lislaamu Insa dafa manqué lislaamu Moussa yonent yàlla Moussa lislaamu yonent yàlla Ibrahima mi nga xam ne bi yonent bi ñëwee yàlla daf ko ne toppal sa diine maam Ibrahima ndax lislaam dafa manqué woon mu ne ma waxuma la ko de ma ne ko sa kàddu gi moo ko wax ma ko ñooñu nangu nga ne seen lislaam mat na ndax ñoom ñëpp ñi ma tudd nii boole bokk nañ ci ulul asmi mooy nit ñi gën ci nit ñi. mu ne ma waa d'accord na ma ne kon seen lislaam mat na mu ne ma waa seen lislaam mat na ma ne kon lislaam kon du julleeg war ak natt asak ak joxe muram koor kon loolee nga xam ne ñoom ñëpp ci lañ daje ba yàlla ba tax yàlla ne laa nu farexu baynal ahadin minkum kenn koo ci weer weddi weddi nga morom ma looloo di lislaam loolu nag yëngatoom yëngatoom aajowut ñuy tabax jàkk ak jumaa mm-hmm. yëngatoom yonent yàlla Muhammad def na ko biir Makkatal Mukarrama fukki at ak ñett mm-hmm. organisation door a ñëw ay jullit door a daje mbooloo mi bari ñu ne faw ñu tëral organisation tabax barab boo xam ne dañ fay mën di daje mm-hmm. ngir programme jullit yeeg organisation ak xare yeek tolluwaay yi ñu mën di ko organiser waaye tawhid jàkka ji ñu koy jullee mooy jëmbu doomu aadama mooy jaam bu ci nekk farata la ci yow amma tasawuf yi faradal ay ni la dal xasaali bi doona mayin farata la ci yow nga jëmbat tasawuf sa bopp ndax mooy li nga xam ne moom moo mën a dog bàkkaar bi nga xamante ne nii yow la sa diggante ak sa borom ndax dafa am lu tax diggante jaam ñi ak seen morom yi jaam ñi sàcc ci la bokk fen ci la bokk njaalo ci la bokk jëw ci la bokk tooñ ci la bokk xarab ci la bokk loolu nit moromu nitam la koy def waaye bàkkaar bi dox diggante jaam beeg boromam benn bàkkaar kott la muy bokkaale yàlla suñuy dañu nekkee ndaw dañoo bañoon lépp bëgg xam-xam xanaa wax ne su ko xaaritoon jar doonaa ko am. abonné seen YouTube bu Ndiamé TV bësal notification bi ñu tàmbal la foofu nga mën a abonné wu ndax ngay mën a am vidéo yi ñu dugal chaque jour.